لي جانغال ني يورون ايكول بوبو دون كو دوخال بهذا المعاد موي خامل بلا معاد بلا ايكول دينا عيش غير ني دوند دوند الجديه غور غور والمثال يا اكزامبل والصبر والمصابره صح كي مباخ ما رد لا نس الاسلامي بكول يتحدث من نتلا نفسي جبهم وثيقه تعريف كيف بي دا فاي خامل لن ما ايكول بوب mu ne muassasatun islamiyatin école islam la nga maat bi moo wane na ne mooy dënd alaaj Abdoulaye léegi moom lañ jëmbal ni def ko école mm-hmm. tarbawiyatun dafay yare ariqatun bu cosaanu te assasat sosu na munzu qarnin depuis maas wa nisfi qarnin ak genn wàllu maas taqriban ci mu nettali mm-hmm. ba mu man na maas ak genn wàllu maas na mooy téeméeri at mm-hmm. alaa yeddi alaaj Abdoulaye Niass ci bu mag wa qad arafat xam na moom école boobu ndax de tan buur boo xam ne maanaam jug goo xam ne mm, la mes bi jiituwut laañeel ko masirun morom fi awaayil aqdi rabien si njëlbeen ak aqdu rabien min al qarne seen si maas ak ñaar fukki xam nga qarnu dafa am ay fukki at yu nekk rek benn aqdu la bu ñu waxee ne aqdu rabien ci qarnu mooy ba maas gi amee ñeent fukki at xam nga maas mooy téeméeri at aqdu rabien nga nag mooy ñeent fukki at ya maas boo bëggee xam bu ñuy wax maas ak fukkeel wala maas ak nangam xam nga maas mooy téeméer at yu nekk léegi boo jëlee nu mu tuddati bi ci kaw ak chiffre bi xam nga par exemple mille neuf cent ba mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf loolu mooy maas boo bëggee xam maas googu nu mu tolloog nag da ngay jël ñaari chiffre yu njëkk yi mille neuf cent ñaari chiffre yu njëkk naan la dix-neuf nga yokk ci un bi ci suuf dafay nekk vingt da nga xam ne masse gi mille neuf cent ba mille neuf cent euh, quatre-vingt-dix-neuf da xam ne masse boobu masse ak ñaar fukkeel la tomb tombe boo jëlee mille huit cent ba mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf jëlal dix-huit yi yokk ci un dafay nekk ñaata dix-neuf nga xam ne masse gi mooy masse ak dix-neuf kon bàyyi ci masse ak ñaar fukkeel gi ci dund hmm? pourtant ñëpp ci maas googu lañ judd alhamdulilah tawul yàlla yi yàlla mayoon na la ñoom seen maas yëpp dañuy texe alaa yeddi Cheikh Ibrahima Niass si loxo Cheikh Ibrahima Niass adadi bi nga xam ne ala na feeñal na fi munaasabatin ci ay xew-xew ajidat ñu limu maanaam école boobu yàlla def na ci ak buur ak yëkkatiku goo xam ne mosuñoo gis maas ak ñaar fukkeel gi école bu buuree noonu yàlla feeñeeku nag ci loxo baay li nga xam ni feeñal na ci ay xew-xew yu bëri àndoo ne moom min xirriji haazil mu assasa mu ngi jugee ci bile école al mahzariya boo xam ne daara la woon allati mm-hmm. bi nga xam ne asbaar mujj na léegi mu assasatan di école buñ sos nizaamiyatan buñ organisé sanat mille trois cent quatre vingt ci gàddaay gi mhm. al muwaafiq mu dëppoo mille neuf cent soixante euh, ci luñ ko defar nag mu nekk école boo xam ni dafa dëppoo ak jamono mhm. maanaam bàyyi ci waxtaan yu bëri mu ngi leeral ne moom baay bàyyam moo ko jàngal kon ci école boobu la la génne loolu la mu ci muy leeral ne moom ci école boobu la génne ay surabata ba mu takkee alaqaatin ay relation saqaafiyatin yu ko ci wàllu saqaafa maanaam aju ci wàllu xam-xam maal azhar ànd ak école bu mag boobu nekk ca Qahira mu di azhar ayaama Jamal Abdou Nasser ci fan Jamal Abdou Nasser su ko defee dafa am relation ak Jamal Abdou Nasser jàppalanteeg moom ci wàllu njàng mi moo tax sax dem nañ ba mujj di ebal fi ay ay nit yu jógee foofu di ñëw di Medina di jàngale وقد سكرت جملنا حسنا تتثقافيا بو خمني كجو خم خم لا اسلاميا كجو اسلام لا منيعا بو ارو في وجه المد الاستعماري تي كانامي تالالوك نوت جيغا خمني نون يا لي نينكو دون نوت جوليت ايكول بي دا فا نيكون بن باراس بو خمني كوفا دوغ ريك يا دا فا ملني صاح تخم تباوي دوتو دانو دي سكاو وجعل دفنا من مدينه كولاخ دك كولاخ في السنغال markas ishaayin barabu leeral arabiyin bi ka jug arab islaamiyin bi ka jug lislaam dégg nga mm-hmm. école boobu tax na Kaolack am benn centre boo xam ne ni dafa mel ni jant boo am jeneer mm-hmm. di jàngale arab di jàngale islam di leeral lépp lu aju ci côté boobu yatamassaku dana jàppandiku moom centre boobu dana téyandu bil kitaabi ci alquran wa sunnati ak sunna ñaar yooyu rek ci la sukkandikoon wa yarfadu dana bañ al bidaa bidaa wal xulu wa xóot fi diine ci diine xóotal diine mooy lan mooy dem ba nga xam ni hmm, yeeg nga ci maqaam yoo xam ne ku sol sax nga ne safar la jëm nga yaakaar amuñu fa yegg am nañu ne safar la jëm hmm? lu def nga ne baaxut te pourtant baaxut gi doo ko teg ci dara loolu mooy xóotal diine mais bidaat mi mooy nekk ci loo xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf koo bañ alquran bañ ko santaane wuñ ko fenn loolu mooy bida école bi nag moom dafa daf daf lay delloo ci wasatiye yi nga nekk ummatan wasatan ku digg doom doo xóotal doo fenti nekk ci lu yonentu nekkoon rek école Cheikh Ibrahima noonu la meloon waqad laqee daje nag haadi l muassasa bi la école al mutamayisa bu ràññeeku daaman ndimbal ak dëgëral متواصلا باجي جوكرو من جهات عربية جوجي اي عرب واسلامية غير الاسلام maanaam ñoo xam ne ay arab lañ ay jurit lañ daan nañ def seen loxo ak seen doole ci école bi kaana nekkoon asab ku jiitu fiyaa ci moom li misra ñeel misra wu mauritania waa misra ak mooy mooy mooy qahira mooy égypte ak waa mauritanie ñoo jiitu woon ci luy dëgëral école boobu fa awalu bi'satin azhariyatin fa awalu bi'satin njëlbeenu délégation azhariyatin buy këjug azhar fi awaa'ili sab'iniyaati mooy si njëlbeen ak sab'iniyaat bi ñu ko waxee mooy ay soixante-dix jëm quatre-vingt xam nga mille neuf cent loolu kon mille neuf cent soixante-dix jëm mille neuf cent quatre-vingt ci diggante boobu la délégation yu jugee azhar daal di ñëw wal bi'satul Mauritania délégation yu jógee ci Mauritania al ula gu njëkk fi samaniyaat la ay 1980 yooyu jëm 90 wa tawalat mu continué al bixsaat délégation yi min al maghrib jógee maghrib wa soudan wa jihaatin oxra ak yeneen anam ak yeneen wàll saamaxat ñoom ñëpp bay nañ seen waar fi taxriji dafaatin ci génne ay mbooloo tulaabiyatin yoo xam ne ay jàngkat lañ min aglabil aqtaar al ifriqiya jugee ci lu gën a not ci wàlli Afrique yi bi xibaraatin ci ay xam-xam aliyatin yu kawe fil quran yi ci alquran wa ulumi ak xam-xam alquran wal hadis wa mustalahi ak mustalah hadis wal fiq wa usuli ak usul fiq wa luxatu arabi ak langu arab wa furuuy ak ay banqaasam wa majalaatin uxra ak yeneen lef hmm? ñii ñëpp ñëw nañ bay seen waar ci école bi joxe fi seen xam-xam génnee fi ay taalibe yu not yoo xam ne ñu ngi jugee ci mboolem gox goxi Afrique rek dañu daan jugee ñëw ci école bi di jàng dégg nga jëlee fa alquran xam-xami alquran hadis mustalah hadis fiq usul fiq arab luxatu arabi ak i banqaas mooy naxawoog sarfoog baraaxaak xarut ak yooyu yëpp dañ ko doon jàng foofu ak yeneen i fànn mm-hmm. ahdaaful maahad jubluwaayu école bi lan moo tax a jub école boobu hmm? mm-hmm. dégg mu ne nasrun mooy tasaare wa siyaanatu saqaafati ak wëttu xam-xamin islam wa tasbita ak dëgëral ko fi sufuufi nash il jadidi si sàppeeg maas gu bees gi ñëw ngi san lii moo taxoon jug école bi mooy fexe ba xam-xamin islam sax ci maas gu bees gi ñëw gis nga boo bëggee soppi màggat du soppi dara màggat du soppi dara na fekk na mbon dëgër ba pare te moom li ko dese bëreetul hmm? te bu soppee ba soppi xale yi bu ñu yarawul bu ñëwee yàqalam soppi woon yëpp hmm. ndax jógee na fi waaye ndaw mooy soppi hmm. moo ku bëgg sens dara yaral ndaw ñi fexe loolu nga bëgg sens mu nekk ci ndaw ñi tubaab bi nag ñoom noonu la ñuy ñu ne leen ba màggat yàlla may man na laa may xam-xam ndax màgge nga may na la alal may na la moyen naa lu bëree bëri bëri bëri nga yaakaar na yow léegi mën nga changé bu fekkee yow am màggat nga boo xam ne léegi nga bëgg dee nga nekk di wax rek waaw def leen nangam nangam bu ko def di def sa moyen yëpp pour lan pour soppi mbir mi sa bopp tey tey tey tey fekk affaire bi gaayowul noonu. Mhm. gis nga changement ku yàkkamti mënu koo def mhm. ku yàkkamtiwul rek moo mën a soppi dafay teg benn projet boo xam ne fekk téeméeri at lay sotti tubaab ñoom yàkkamtiwul yow di jamono bi ngay xeex ak ñoom. Mhm. ñoom fekk na seen mbir dëgër na boo xam ne nii pour mu yàqu du yomb ñoom ñu ngi ci ndaw ñi ñoom di leen récupérer fexe ba gëmloo leen mbon fexe ba gëm gëmloo leen àddina fexe ba saxal ci ñoom jikko yi yow boo liggéeyoon ba defaat dara sax maam bu seen tabax sax say doom yi nga yar daa wax ñooy màgg ñëw dindi li nga tabaxoon parce ñoom ñoo ñu récupérer su ko defee loolu lay wane ne E, soppi ci ndaw ñi la war a nekk école bi loolu ko taxoon a jóg fexe ba ndaw ñi njàngaleem lislaam piir nekk si ñoom bi ci nekkee rek ëllëg la bëri soppeeku hmm? te toll nañ ci jamono boo xam ni julli ñi dañoo néew doole dañuy mbow rek waaye daa daanaka duñ def dara hmm. Hmm? dañu mbóo rek ñu dañoo tàqali ko pour ñu doxal li yàlla bëgg mm-hmm. euh, foo ñu am njiit mm-hmm. foo ñu am doole tamit ay réew moo xam ne ay noonu yàlla ko jiit arab bi gën a jege lislaam soo boo ko jàngee mënoo nekk président ci réew moom nga xam ne réew moom mën nañ faa doxal lislaam coolee bëri rek pexe bi mooy nañ nañu fexe récupérer réew mi delloo ko lislaam te bàyyi complexe bi xam nga léegi lislaam li ñu doon yàq dërëm ba yow booy xeexal lislaam sax doon na nga wax ne lii pour lislaam la maanaam ay droit de l'homme ak droit de yooyu yooyu yooyu caaxaan la lu dul dëppoog njàngale yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay tappale la baaxul foo am ñu gëm loolu para tamit def ci askan wi ne leen njub ak mbaax ak nekk ci jàmm ci lislaam lañ ko mën a amee ni ñi gëm ko buñ ko gëmee danañ fal doomi jullit ñi ñu nekk ñu nekk président yi bu yàggee réew mi mujj ci lislaam te bu mujjee ci lislaam ni ñu nekk ci jàmm mm-hmm. loolu nag foofu njiit yi baax maanaam wane jikko ju baax xam nga yow bu fekkee yaa jàng lislaam yaa gën a nanga waaye yaa gën a kàccoor yaa dàq sàcc yaa dàq tiriya ah. bu yàggee ni ñu ne ah ñii dara nekkuñ ci tous ñoom it mm-hmm. ah nañ leen toppi tubaab ah, que ñoom ñoom yàlla wedd ko ñu ngi neex yéen ngeen gëm yàlla ba pare naafiq gën gën a bon ñëpp dañ naan ah ñii tamit soo leen watalee tamit nangam hmm? affaire bi yàqu wala boog kii kër daa kër nangam la bokk contour naa ko kii kër nangam la bokk bëgg naa ko kii ñëw bokk sëriñ bëgg naa ko kii ñëw xam nga yooyu tamit ah dafay tax tamit ku jub sa waa kër jàppale la ñeneen ñu xeex la ndax dañuy jàpp ne yow kër sàngam ngay liggéeyal te fekk lislaam lislaam rek yellanti ko woon mbaax tudd mbaax duñ ko askanee benn nit yaa ngi dégg nu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi mbaax jikkoo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mooy mbaax lu dul loolu rek ay caaxal kon nit ñi toppuñ kenn ku mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam à part yonentu kan lañ topp kenn ak kilifa lu mag mag mag gaa yi toppuñ bi la nit topp waaye nag jikko yonent bi fu ñu ko gis tamit roy kooku kon kon kan nga roy yonent bi parce que waa ji nga bëgg dara taxul nga bëgg ku lu may jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gis moom yow moom nga bëgg wala yonent nga bëgg yonent bi nga bëgg waa ji li tax nga roy ko parce que gis nga ne moo la gën a xam yoonu yonent ni mu jàngal na la nga topp yoon woowu ndax la ndax jàpp nga ne lii mooy yoonu yonent bi waa ji nga topp wala yonent bi nga topp ñun ñëpp yonent lañ topp ba pare di tasaaroo hmm? mm-hmm. loolu loolu fu ñu ko teg loolu lépp parce que dañoo jël nit ñi samp leen ba fàtte ne lii melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fàtte ne ndekk ñun toppuñ diw kër yonent bi lañ topp moo tax léegi ku nekk di diine ji léegi dafa ne mënul parti politique parti politique ku nekk di xeexal sa parti hmm? parti politique hmm? mm-hmm. ay nit mën ñoo woo ko benn sëriñ sax waaye am ay bokkuñ ay muqaddam ku nekk tamit sampal sa muqaddam parti mm-hmm. man parti nangam laa faree lu fa xew rek baax na dëppoo naa xooti yonentu dëppowul ça va baax na parce que suñ parti ñoo ko def bu kon baax na parti ba deful ko nag baaxul loolu moo ñu lor xam nga bu njëkkoon Malik mu ngi fi woon doo amoon ay taalibe Ahmad ibn Hanbal doo amoon ay taalibe Shafi doo amoon ay taalibe Abu Hanifa doo amoon ay taalibe du ñoom ñoo fi njëkk suñu sëriñ ci ñoo fi jiitu ndax mën ngaa gis kenn koo xam ne bokk ci Maalik rek tax na mu yaakaar ne moo gën nit ñi ay waaw man mooy suma sëriñ kon man du seen morom mën nga koo gis ku koy wax mais ñooñu nag dëgg-dëgg li ñu fi liggéey nag bëri na kilifa yëpp ci gannaaw ñooñu la nekk parce que ñooñu lañu roy sax ci wàllu jaamu yàlla kon yow tamit sëriñ bu la neex toppal mais sa jëf rek moo tax moo lay tax a maa topp sëriñ nangam maa leen gën force parce que lan parce que sëriñ nangam laa topp lu amul fen sa mbaax sa roy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sa teg sa tànk siraatal mustaqim ci ngay rawee nit ñi ci nit ñi di rawee bu dee sa sëriñ yoonu yonent rek moo ko taxaw na képp koo gis mu xaw ci yoonu yonent bi rek xamal ne sa sëriñ mooy sëriñam askanoo gi du dara lu may damaa gis ne kii njàngaleem lu baax la ma roy ko mais roy Malick lu tax nag nga kontu Shafi ku rëy ci Malick Chafi sa sëriñ la Malick sa sëriñ la ndax ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy jàngale yaa ngi de mais tur yi moo ñu lor tur yi yëlante ko ñu effacé tur yi nit di xam te duñ askane kenn xam-xam nit ñi di jub te duñ askane kenn jub su am loolu amoon ñu askane ko yonent bi rek këroon mu baax waaw mais askane gi pour pour pour topp njàngale rek hmm? waaw mi da am ñi di wax karkara ñaar ñëpp mbaa yàlla yonentu doon sallallahu alayhi wa sallam Midaam ne kër la dem na ci xare xaybar ñu jëm ko mu dee saxaaba yi ne dafa shahid aljana la jëm yonentu ne mukk safar la jëm na dafa sàcc benn mbàjj ci màng mi te bu fekkee nit mën na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi nekk mbaa yàlla yonentu sallallahu alayhi wa sallam dee dugg safara ndax sàccam yow ànd ak beneen sëriñ mën naa tax nga def lu la neex dugal jala dañ bàyyi naxante affaire bi jëf la de balaa nga xam ne affaire bi jëf la rek ñëw wallahi da nga xam ne dañ loolu ay nax rek ku ci bàyyiwul euh, sukkandiku ci ay wax kese te doo jëf baal ku ñëwee rek kenn du la te mbaa yàlla yonatu tuutuut de boo ko weddee rek laajal safinatu yow nga jug safinatu mbaa yàlla yonatu loolu mooy jaam bu dafa dem ci ab àll mu demee ci àll ba gis fa gaynde moom safinatu gaynde gaynde gi bëgg koo lekk ko naa ko ne man la man la safinatu mbaa yàlla yonent bi gaynde gi sëgg mel ku di ko mbuu ànd ak moom di ko wan yoon di ko wan yoon parce que yoon bi dafa risque gaynde gi garde ko ba teg ko ci yoon wóor daal di sab gaa yi ne sab gi da ko doon tàggu daal di dëpp wan ko gannaaw yow de boo demoon naa man la nangam man la sëriñ taalibi sëriñ nangam génne gi moom mooy loolu la fàtte ñëwaale kër sëriñ sëriñ bi xool kum fa fàtte maanaam dama la bëgg wax ko garaat bi mu am moom mi wala kër kër googu garaat bu yow amoo ko ndax saxaaba yonentu la sallallahu alayhi wa saxaab bu ngeen doon dundaloon lu toll nii doo ci waxut moom mu dundale genn wàll yi ko. te garaat boobu rek ma tax na gaynde sëgg di garder nit te gaynde mala la garaat boobu mu am ko ba yolli benn affaire rek sàcc yàlla dugal ko safara mu dee ci xare tamit kon yow lu ñu la mën a wax war ngaa tiit boo jëfut lu baax amul kenn genn kër gooy bokk ba sàcc dagan yii nag la école bëggoon def ci ndaw ñi ñuy góorgóorlu ci jëf ak ak di bañ di bañ nit ndax lan ndax bokku leen sëriñ bokku leen tariqa bokku yooyu yëpp nañ ko dindi nañ ko dindi mhm. waaye nag ku baax ku ne nag dañ la dimbale sëriñ bu aw ci yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bañ ko foo ko teg yow yonentu nga bañ tamit wala boog nit bëgg na sëriñ sàngam parce que dafa aw ci yoonu yonentu nga bañ ko yow koo bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon l'islam mooy bëgg ku baax ak mboolem ñu baax ñi foo leen gis bëgg leen ak kuñ mën a doon ak kër guñ mën a bokk jullit ñi ñooy say mbokk ku baax ku ne mën nañoo waxal lu baaxam waaye nag buñ ko jaamu xamal ni toppuñ ko yoon yonentu rek lañ topp sallallahu alayhi wa loolu mooy mbir mi. loolu la noonu école bi di sas def ci nit ñi nasru lugati tasaare langue arabia wa taamuq ak xóot fi taalimiya ci jàngale arab bi'tibaara ndax jàpp ne lugatul quraan mooy langue al quraan wa wasilatun yoon lay li famille islam pour dégg l'islam wa nasri ak tasaare ko école bi dafa doon tasaare langue arab nga arab mooy làng alquran mooy tax nga mën a dégg alquran kon boo jàngu arab xamoo ko mën ngaa bañ a dégg alquran mën ngaa bañ a dégg xadis ay xer su xiir ala taalim abnaani muslimina si jàngal doomu jëriñ ñi wa tarbiyatim ay yar leen tarbiyatin islamiyatan yaram islam sahihatin gu wér li taxoon jug école bi mooy jàngal doomu jigéen jullit ñi ak yar leen ci yaram islam tarsiqul aqaidi sahiha dugal pas-pas yu wér yi fi nufuusi tullaabi ci taalibe si bakkanul jàngkat yi ala mazhabi ahli sunna wal jamaa ci ngërëm ñooñ sunna ak mboolem yi wa tanqiita setal ko min kulli shawaay bi ci mboolem yu rax yi àll ci nga xam ne awliqal nañ ko bil islaam ci islam fexe pas-pas bu wér dugg ci bakkanu taalibe yi te foog ñooñ sunna ak jamaa lañ jàpp yi nga xam ne dañ koo rax ci islam te bokkut ci nga ñu génne ko fa yii daal moo taxoon a jóg école bay muridul islam astantumaa tawfiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu